Massar Dabo maa ngi lay nuyu. maa alors ngay activiste di environnementaliste également nekk euh, kenn ci euh, kuréel gi nga xamante ne moom la ñu duppee Green Sédhiou euh, ci conseil des ministre gis nañ ne bëri na ci wàllum environnement goo xamante ne tukkee na fa ñu ko doon waxtaanee rawatina élimaanu jëriñ ñi ne daal trafic de bois yàgg naa nekk jafe-jafe ñu wàccee cee mën a taxaw pour yow lan moo waral problème bi lee muy gën di persister. waaw jërëjëf bon yaakaar naa problème gën tax mu nekk fi ba léegi mooy dafa amoon benn benn manque de volonté politique maanaam tey Sénégal tolloon na ci tolloon na foo xamante ne am na loi yoo xamante ne bu ñu demee ba gouvernement bi du ko mu bañ ko appliquer rek c'est parce que dafa am benn manque de volonté politique. Hmm. loolu waral na euh, trafic de bois bi mu continuer euh, depuis boobu ba léegi ñu ngi ciy wax à chaque fois Sénégal am na ay loi yoo xamante ne ba léegi ñu ngi fii te yooyu réglé na problème yépp mais malgré tout. mu ngi continuer parce que tout simplement dafa am nit ay nit yi nekkoon ay ministères ñoom ñooy joxe ay permis de coupe de bois ñoo koy jox ay délinquants forestiers ñooñu di ñëw di ko dagg di gor garab yi di jël bois bi di ko dugal Gambie du wàccee ko ci bateau yi yóbbu ko Chine wala Inde donc loolu bu ñu demee ba gouvernement bu bees bi bu ñëwee mu gis ni loolu ba léegi problème bi mu ngi persister am na li nga xamante ne moom moo doxul loolu ñun vraiment dañ ci dañ ci léegi nag ñoom. solution bi mu ngi seen loxo ndax xam nañ lan la ñu war a def pour que problème bi ñu mën koo régler définitivement dañu war a def ay sanctions yu sévères maanaam tey képp ku ñu jàpp ci loolu wala képp koo xamante ne bokk nga ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci domaine boobu bu ñu la jàppee ñi tëj la sanction bu gën a metti ñi teg la ko bu ñu ko defee buñ ko defee noonu benn yoon ñaari yoon ñetti yoon yaakaar naa problème bi léegi mu commencé réglé wu. mu mel tamit euh, daanaka bëri na. effectivement effectivement dafa bëri risque trop parce que euh, boo xoolee les agents des eaux et forêts tey la plupart ñoom am na loo xamante ne am na ci àll yoo xamante ne mënuñ fa àgg parce que lan la ñii ñëw di gor garab yi la plupart c'est des yi nga xamante ne ils sont armés ils sont extrêmement armés donc ñoom mënuñ jël engagement ñëw naan dañuy jéem a traiter ñooñu pour ñu def lu ñu war a def alors que ñoom ils sont pas équipés loolu moo waral nag gouvernement bi utiliser tous les moyens pour que au moins les les eaux et forêts mu équiper leen équiper leen jox leen ay gànnoo ak jumtukaay yi nga xamante ay gànnaay yi nga xamante na mën a tar tax ñi mën a défendre seen bopp pour que au moins ñoom ñu nekk sécurité parce que tey mënoo ne da ngay protéger forêt bi alors que yow en personne tu n'es pas en sécurité donc loolu moo tax man dama jàpp ni affaire trafic de bois bi ministère yëpp ci war a dugal seen loxo surtout ministère des forces armées hmm. moo tax ñun rafetul à chaque fois euh, day am benn conseil interministériel boo xamante ne day concerné ay ministères yu bëri tey mm-hmm. wàllu alam bi yaakaar naa euh, ministère yëpp a ko bokk moo tax ñëpp ci war a dugal seen loxo pour que au moins problème bi ñu mën koo régler benn mu jeex ñi xool leneen. Mm-hmm. fi mu toll nii sax nee nañ daañu auditer tamit lépp loo xam te ne jëm na ci euh, direction des eaux et forêts. waaw audit bi moom dafa am solo parce que service boobu bu toll ni eaux et forêts muy service bu yàgg la ci administration sénégalaise bu Sénégal état bi di di ci dugal ay moyens ba pare moyens yooyu du ñu àgg fu ñu war a dem yaakaar naa dañ ko war a auditer ñu xam. Mm-hmm. xaalis boobu fan la dugg. te loolu je pense que loolu moom mooy logique sax parce que tey état bu normal buy fonctionner waroo mën a jël ay moyens di ko dugal ci ay service ba pare li tax ñi dugal ko ci service yi duñ ko gis te ba pare duñu toog def auto évaluation maanaam xool lan moo dox lan moo doxul li ñu dugal fii fan la dem. ban njëriñ la am donc je pense que loolu dafa war a doon loo xamante ne loolu dafa war a nekk de suñu quotidien à chaque fois muy état muy leneen muy leneen fépp foo xamante ne euh, alalu kan bi dafa dugg da cee dugg dañu war a toujours toog set ñi def benn toog seetlu xool ba xam lu ñu fa dugal àgg na fu fu fu mu waroon a dem ndax ñun lu ñu ci yaakaaroon am nañ ko wala amuñ ko su fekkente ne am na ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy dañuy utiliser loolu ci beneen fin boo xamante ne bokkul ak ñoom li tax état yëkkati Euh, moyens yooyu jox leen ko ñooñu dañ leen war a sanctionner. <laughs> alors euh, ci li nga xamante ne nag moom la ñu dëdmal muy euh, bés gi ñu jagleel wàllum environnement juróomi fan ci weeru juin njiitu réew gi nag Bassirou Diomaye a fay woolu na gouvernement bi ngir ñu gën a mën a vulgariser nag lépp lu jëm ci politique gu yees gi jëm ci wàllum environnement ndax am ngeen yaakaar ci démarché yooyu le waaw am nañ ci yaakaar trop ndax tey boo xoolee environnement bi. environnement bi dafa dégradé wu te Sénégal war na bokk ci pays nekk ci àdduna bi yi nga xamante dañoo war a am taxawaay boobu ndax Sénégal am na benn point fort muy am na grenier boo xamante ne muy Casamance Casamance euh, Sénégal possédé na fa ay forêt surface yu bëri forêt donc loolu buñ ko sàmmul du baax au delà de loolu sax boo xoolee doomu aadama yi seen action maanaam nit ñi bés bu yàlla sàkk dañuy wàññi forêt bi bu ñu wàññee surface su forêt bi dañuy yokk surface su désert bi te loolu tax na euh, boo xoolee euh, journée mondiale de l' environnement bu ren bi thème bi ci loolu lay porté wu mooy maanaam euh, affaire u désert bi lépp li nga xamante ne dafa concerné déforestation bi hmm. donc nit ñi dañu war a contribuer ci résilience à la sécheresse dañu war a fexe de sorte que surface yi ñu perte i nga xamante ne ay garab a ci nekkoon te ñuy garab yooyu dañu ñu doon permettre ñuy mën a am nooy bu baax ñuy mën a servir ci oxygène perte nañ leen parce que lan la nit ñi doomu aadama ci boppam moo utiliser garab yooyu pour ay besoins personnels am mais de façon abusive te loolu nag euh, ça va à l'encontre li ñu naan le développement le développement durable donc tey état du Sénégal bu jógee président bi mu am taxawaay bu mel ni dañ koy rafetlu te gars yi ñi bañ yam ci uniquement ci ay wax rek mais nañ jëm nañ nañ def li nga xamante ne mooy jëf ci mm. te loolu vraiment ci loolu lañ leen di gën a xaare alors lan la association Green Sédhiou jot a def nag ci wàllu boobu. waaw Green Sédhiou euh, comme noonu euh, association la bu yàgg sax daanaka def na léegi juróomi at mais ñun ñu ngi ci sensibilisation ñu ngi ci formation. Hmm. ñu ngi ci côté éducation. lu tax ma ne côté éducation parce que ñun dañoo teel a comprendre ni tey doomu aadama boo koy boo koy defar da ngay jaar ci bi mu nekkee xale yi loolu tax na Green Sédhiou ñun dañoo amoon benn projet bu ñu tuddee woon PEROCD boo xamante ne ñu nekk suñu partenaire ñoo ko doon kii ñun ñoo ko doon piloté fii à Sédhiou muy JVE dañ doon créer ay jardin écologique ci école yi mais dañ insisté woon d' abord d' abord création yeeg redynamisation des clubs mooy club environnement yeeg club vert yi ci biir école yi pour que élèves yi ñu mën a bokk ci benn kuréel boo xam ne dañ leen di woowee ay club environnement après dañuy créer ay jardin ci biir école bi ci biir création jardin bi ci la ñuy profité di leen wax lan mooy importance su environnement lan mooy importance su béy ban genre béy façon béy la ñu war a def euh, mooy li ñu naan agriculture urbaine agriculture écologie mais ñun suñu objectif mooy maanaam dañoo bëgg au moins mettre à la disposition de la communauté ou encore des communautés benn citoyen boo xamante ne day am benn éducation boo xam ne comportement éco citoyen li ñu naan un éco suñu objectif loolu la te yaakaar naa gouvernement du Sénégal bi euh, ci loolu la nekk donc on est en phase on souhaite vraiment que loolu mu nekk loo xamante ne mu doon réussite parce que tey environnement dafa am solo ñun boo gise ñi am taxawaay bu mel nii ci biir région de Sédhiou parce que ñun dëgg la yàlla def na ci ñun am na ñi nga xamante ne ay ndaw lañ ñenn ñaa ngi jàngale ñenn ñaa ngi liggéey mais dañ comprendre ne ñun mun nañ apporter région de Sédhiou dara hmm. ba tax ñi teg kuréel bi mu tudd ñu ko Green Sédhiou pour que ñëpp mën cee def seeni i loxo tey buñ toogee fii mu am beneen dëkk boo xamante ne dafa am ay délinquants yu fa ñëw di gor seen garab yi dañ buñ buñ fa amee membre membre boobu daf ñuy woo mu wax ñu fexe def ay jéego woo waa eaux et pour ñu mën a mën dem foofu sécuriser leen donc taxawaay boobu lañ nekk muy prétection préservation mais aussi ñu ngi lutter ci lépp li nga xamante ne mooy effet changement climatique yi Euh, changement climatique mhm. mais fan yi ñu ngi ci yëngatu ci affaire reboisement mangrove parce que loolu aussi ci ciy contribuer trop en tout cas daal ñu ngi saluer les actes mais euh, on veut vraiment que gouvernement bi daal mu jël ay décisions yu ferme maanaam sanction yi moom na metti parce que tant que loolu sanction nit ki li ñu naan euh, nit ki buy nelaw boo koy raay day gën a day gént mais da koy mbéj képp koo xamante ne yaa ngi def loo xamante ne c'est contraire à la loi rek à nos textes nañu la daan daan bu metti loolu vraiment loolu la ñuy xaar ci nguur gi parce que loolu tant que defuñ ko rek nit ñi duñu mën a respecter euh, léeg li nga xamante ne dañ ko bokk ak ñeneen ñi. Mhm. mu mel ni campagne d'information gi ñu woote yi tamit am na solo. si si si am na solo ndax mhm. loolu rek moo mën a changer doomu aadama moo mën a changer nit. parce que nit boo xamante ne am na ñoo xam ne ñu ngi def yenn actes yi mais xamuñu xamuñu lan moo tax ñu koy def wala certainement xamuñu ni loolu état wala loi da ko tere mais ñàkk xam moo tax ñu koy def mais bu ñu leen informé xëy xam ne ñoom lu ñu def baaxul. te même bu dee nañ ko def dafa am yoon bu ñu ko war a jaarale parce que tey kenn amul droit nga gis benn garab nga ñëw nga góor koo def ci ses besoins alors que amul benn autorisation góor garab bi parce que garab bi du yoo dong yaa ko moom mais da ko bokk ay doomu aadama du uniquement ñi nga xamante ne yow ñooñu nga nekkal ci dund mais am na ñeneen ñu war a ñëw te ñëw ñëpp da nga leen war a considérer donc tey ku góor benn garab war ngaa mën a am vraiment yéene jëmbat juróomi garab pour que au yow lépp li nga enlever maanaam lépp li nga dindi ci environnement bi. mun nga koo remplacer même bu dee du tey mais mu nekk ci ay at yu ñëw ci ginnaaw ci kanam. Mhm. Fassar jërëjëf may fàttali rek ne activiste nga waaye tamit nekk environnementaliste bokk ci kuréel gi ñu duppee Green Sédhiou ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.